Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, vous suivez le programme de Salam Vision. Voici quelques synthèses de l'actualité à la présentation euh, signée Cheikh Oussako. Euh, parlons de politique. Le Fonds national de résistance a été reçu hier par des boucs émissaires du Khalif général des Mourides pour parler de la situation politique et l'instabilité qui règne dans notre pays. Imaginez-vous, depuis euh, les événements tragiques qui ont endeuillé le pays, enregistré 14 personnes ont trouvé la vie. ont très rapidement compris, les émissaires du marabout, ils ont décidé d'écouter euh, leurs préoccupations. Raison sur laquelle les artisans de Pékin et de la banlieue haussent le temps, ont décidé ensemble de marcher très prochainement dans les rues de Dakar pour protester euh, contre l'attitude des autorités. Euh, selon ces artisans, euh, ils n'ont reçu aucun somme pour satisfaire leurs croyances. Restons toujours sur l'actualité nationale. La situation continue de défrayer la chronique. À l'université euh, Berger de Saint-Louis, les, étudiants disent non euh, à propos de la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Khan, euh, dit-il, ne veut pas du tout reconnaître le Master 1. Euh, Hors de chez nous, nous sommes bien au Congo, au Brazza. C'est officiel, Denis Sassou Nguesso a été réélu pour un cinquième mandat à la tête du pays avec 88,57% des voix. Il devance son adversaire décédé il y a deux jours, Gibris Parfait euh, Okela, qui, a, qui était victime du Covid. Il euh, Le président américain euh, Joe euh, a au Sénat et au Congrès de voter très prochainement euh, la loi pour punir les Américains qui portent avec eux euh, des armes légères. Euh, tout de suite, la version Wolof. asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma euh, kuréel bi ba kuréel bi ënk bu ëmb maanaam opposition bi mooy Front National de Résistance ñot nañu waxtaan dem ay ndaw yi nga xam nag xarit général des Mourides euh, moo leen yónni ñu toog waxtaan euh, jafe-jafe réew mi Abdoul Mbaye moo doon porte ne nag ñu déglu bu baax ndo ndogalu bi Sénégal war nañu mën toog waxtaan indiwaat jàmm ci réew mi. Euh, artisans yi nag fii ci wàllu Pikine ak Guédiawaye dañu fas yéene nag dox doxu ñaxtu wane euh, seen naxar ak ñoom nguur gi euh, faral ñu leen tey faral ñu leen ëllëg nekk si ay jafe-jafe yoo xam ni soxla ñu ay koppar jumtuwaay mën def seen liggéey nu mu waree artisan Guédiawaye ñoom nag ñu ngi ñaawal bu baax travaux BRT yi indi ay gàllankoor si seen liggéey. di jëm si mbirum xibaar université Gaston Berger bu Saint-Louis. ñoom nag ñu ngañi bu baax euh, jëw ñu dégg ministère de l'enseignement supérieur di Cheikh euh, Oumar Anne ginnaaw boo bëggee euh, foqati mooy master 1 xam mooy étudiants yi ñoom ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ñu toog war nañu waxtaan ak nguur gi ñu mën ko saafara nu mu gën a gaawee doxantu fële ca Euh, république démocratique euh, république bu euh, Congo seen élection présidentielle ki xam nga Denis Sassou Nguesso jël raw gàddu gi 88 pour cent des voix moom nag moom moo gagné adversaire di Guy Parfait Kolela moo doon candidat bu opposition bi ginnaaw bu génn yàlla na barki démb ki ka faat mooy coronavirus mbokk yi ñu leen di gërëm sant yeneen xibaar incha allah jàmm